sagal nga ku musa ànd ak sigina waaye ana soppey Sëriñ Fall Wali sama fi kolore jafeena yow loolu dalu la gore wëli maane njaay sagal nga ku musa ànd ak yow sigina day topp ko lare mbokkam yaa ibi treble bi day topp ko lare seexam yaa dafay topp kóllëre taalibeem yaa ku musa ànd ak yaw sigina sëriñ day topp kóllëre mbokkam yaa lay la oh. day topp kóllëre seexam yaa dafay topp kolëre taalibeem yaa ku musa ànd ak yaw sigina sërif ni nga bokkeek seex ma fu borom ansaar ni nga bokkeek seex siidi bu ya saadana ni nga bokkeek seex ma doo ay dara ku musa ànd ak yaw siggi naa noon nga si daati sharafa foo mën a tollu di sàmm kóllëre alwali maane njaay sagal nga ku musa ànd ak yaw siggi naa fu njabootam féete mu dem fa te du sa adiya wareef la moom dafay toppatoo njabootam waaw alweli maane njaay gore nga yaa ko yelloo adiya waaye bu dajeeg yow teral la soxna ñaan moom dafay njëkkante teraanga aja alweli maane njaay gore nga yow yaa ko yelloo addiya waaye bu dajeek yow teral la moom dafay njëkkante teraanga alweli maane njaay gore fu safara jugee mu fay ko na de bu aaloo ñu yëg ko moom dafay defaree diggante waaw alweli maane njaay gore nga ba muy wàcc nit ci duniyaa jëmm yu mel ni yow la soxla ndax nga koy defaral suufam see waaw alweli maane njaay gore nga yàlla ba muy wàcce yu mel ni yow la soxla ndax nga koy defaral suufam see waaw alweli maane njaay gore nga képp kuy suuf day suufee moom la la teel ba suufee waaye ak fa yàlla ceebo alweli maane njaay gore sàmm fi kóllëre jafe na yow loolu dalul la gore nga alwelimaan njaay sagal nga ku musa ànd yaw sigina sàmm fi kóllëre jafe na way ku bëgg sëri alweli jógal taxaw ca kaw yow loolu dalul njaay sagal nga du ni nga defal ma bajin bi aja ndey tabara wayal ko alweli maane njaay sagal nga ku ma sa ànd yow sikina mu fi kolore jafe na wa ana soppe serial wali yow la ko

ndax woote ñu wuy si la yombul surtout fi jamono toll tey la 26 daanaka weer wi des na fan mu sori ci ñu bari waaye gis nga ndeysaan ni nit ñi mobilisé woo ñëw fekk suñu fii ci grand théâtre ajangoone soman sama soppe ndeysaan yàlla na yàlla barkeel dama bëgg nag ñu bañ a jël temps bi ndax dañuy taxaw rek ñi nga xam ni ñooy ay parrain ak marraine yi ñëw fii tey kenn ku ci nekk ñu nuyu la xam ni suñuy bëti xol mu ngi lay gis te loolu moo ëpp solo lépp te suñuy bëti xol sax lënt na ci gis leen waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nu defal guddi gii tey di ci sargal seetam bu tedd bi njabootam gi ñëw teew moom teg na bëtam lépp te nag payu gi yàlla moo ëpp bu nit kon dama bëgg rek bu fekkee ni liste bi yemm na incha ñu indi mbooleem ñi nga xam ne ñoo fi ñëw bëgg gi nga ko bëgg doy na texe waaw waaw waaye ku sopp yenente bi defal nii loxo ca kaw

a ngi nii buy leeral sa bëgg yonent bi nekkul ci saal bi a ngi nii sa bëgg taaxa mi lay sa soppe ba aja abi jant a buy leeral sa sa soppe ba aja abi adala ta yegi xamal li yoonu ma def la waay ngay dexe mu ne ku ma way genn wàllu la waay ngay aji dexe sawa li ay maya Muhammadu Abdallah taw sa xeere adadal adadal adadal sifuri turam mi am Allahu latifun gis naa xekam ni maa ngi Medina li du xaram ibnu Abdallah waaxaan waaw sa xol day leer sa pos day xaaja ba ana soppe yonent rasuulillaahi booy wax ay waaxam waaw sa xol day leer sa pos day xaaja waaw seydina muhammad booy wax ay waaxam waaw sa xol day leer sa pos day xaaja alaaji seydina muhammad booy wax ay waaxam waaw sa xol day leer sa pos day xaaja waaw seydina muhammad booy wax waxam waaw waaw taxaw sat bu maa ngi nii dama bëgg mu riir ca kaw sal bi ku ma soppal yonent bi jógal taxaw te naan bu maa ngi nii kay wayal ku ma soppal yonent bi jógal taxaw te naan bu maa ngi nii kay wayal waayog na bee ko yor waayu na bi du torox jëdët يوما rasulillahi sar xolle leen ca kaw waayook na bee ko yor waayu na be do toraax a jaakaro maam si xiirim dumbaan mooy samaam yori na sunu baay laaj ma moom sama la saat bu maa ngi bu maa ngi nii mami seex si daati sarafa saat bu maa ngi nii mami sërif seex na ay dara seex saaya mooy sa baay saya seribu sabaina mami si ahmado Cheikh Faafu mooy sa baay mami si xalma fu ansar yonent bi sama di leen sat bu maa ngi nii kay wayal yonent bi sat bu maa ngi nii kay wayal ni leen sat bu maa ngi nii kay wayal yeneen tube sat bu maa ngi nii kay wayal yeneen waayok na bee ko yor waayu na be du torox sat bu maa ngi nii kay wayal yeneen ma ni waayok na bee ko yor waayu na be du torox ana tuuti soppe baade jaale soppe baade waayook na bee ko yor waayu na bee do torox waaye na soppe yonent bi les amis kay leen way le ma rasulallah waaw waaw yu nabi du torox déedéet taxaw te naan sat bu ngi nii ku sopp Seex Béthio Thioune jógal taxaw ca kaw sëriñ saaliw ku bëgg sëriñ saaliw ku bëgg sëriñ saaliw jógal te xaw ca kaw bañu màggal ko Seex Bamba nee na aw ma doom aw ma xarit waaw waaw waaye doom la leer waaw sama xol be moo ma may le ma fab di texeen ah fa tabarakallahu dama bëgg ngeen andi list bi déedéet jaa ngi commencé gul Serigne Ahmad Tasrif Sougou mu ngi nii toog jóge ba waadaan te am na benn air boo xam ni sama baay Cheikh Mbaye Ndiaye Samb moo ko daan wayal way juram te lii kóllëre la te kóllëre googu duñ ko fecc mukk